ah li ma jàpp mooy warta yàqu Gris warta mun a delloo tax parce que làmb la bu amateur yi soxla bu sénégalais yi soxla pour man warul mën a yàqu te gëm naa ne Gris Bordeaux ak njàmbaaram ak fit gu mu am ak ñu topp ci ginnaawam yaakaaruma ne dina yàq làmbam da nga jàpp ne ko waa Fass ñu mën a daw ko man non man waxuma Fass Gris Bordeaux laay wax personnellement waru mën a yàq làmb da nga jàpp da nga jàppante yàq lamb ji. non waxuma maanaam combat bi man ak moom ça n'a rien à voir ak Gris day yàq làmb non non dama ne la waru mun yàq làmb ji mooy sama diggante ak moom te combat bi combat bu am la ndax lekk na waa sama lekk guma te may gëm naa ne combat bi dina am. mais yow combat boo lekkagul dara am gëm-gëmu ni ko war nga ci da maanaam am bëgg-bëggu bëri ci foo ko teg. waaw ah, buur da ngay xool sax samay encadreur. ñi may encadré ak ñi may topp sama ginnaaw boo waxee dañ naan dañoo am yàqin ni ñu amee yàqin ci ne dañoo war a am ndam noonu la ñu amee yàqin ne dañoo war a jot avance dañoo war a bëre. mais pourquoi Balla Gaye bëgg kut ko kut dal ci Gris Bordeaux daan ko la ngeen consoon na mu demee moo la neexul. no Sénégalais yi ñoo soxla leeral. mbaa ba leerul. waaw non leeral mooy amul wër jàpp daan mu leer. mais am naa ndam ci décision arbitre parce que règlement la moo ñu tënk ñun ñëpp mais li ma la mën a xamal daal mooy leeral dafa war a am sama diggante ak moom kenn ku nekk bëre site am mu leer Sénégalais yi leer askan bi loolu rek moo tax. keroog combat bu njëkk ba la encaissé na ay coups yu metti ci Gris Bordeaux est-ce que jàppoon na que Gris mi gaynde mer la fanaanoo am na lu benn daan bu mu jàppal Balla Gaye du doon lu yomb ci yow waaw yow yow yow yaa may yaa may woowee cukkali da gis man ñu dóor ma ma neewi wala da ma gis ñu dóor ma ma daw wala nga gis ku ma dóor giri maa ko yóbbu ardo xanaa da nga juum wala da seetaanu làmb ji wala yow sa xel mi neew fi giri maa ko yóbbu ardo deux fois mu ñëw yàlla dogal tey ci par door yi métti sax lañ ma waroon joxe victoire parce que dem na ba bët yi mënatul gis normal li ma jàpp mooy combat bi dina am te Gris xam naa ne door ragal loolu daal xam naa ko. mais Gris Bordeaux mën na ci génn contre Balla Gaye. munu mën na ci génn contre Balla Gaye. génn ban façon mën na la daal. non xalaatuma loolu yaakaaruma loolu xalaatuma ko yaakaaruma ko ça veut dire tout wax na dégg-dégg la laaj. xam nga boo daan am combat da naan jàkkaarloo ne ma pour lii laay def. même ak kan ça veut dire tout yaakaaruma ko xalaatuma ko ci sama ngëm-ngëm ci sama mën li may def ci xam li may def waaw lépp nag ci loxo yàlla laa ko teg ça tout Gris daal na ñëw ñu bëre combat bi mu am ak jàmm ñu defal ko bagage après nag ñu continuer suñuy. yow Balla Gaye xam nga li ma neex ceew yow da ngay wax ak Gris mel ni kuy wax xale bu ndaw boo xam da ngay ñëw nappaaje ko eh, Gris di booy yi nga fi doon jàpp ah. non bii Gris nag ba may bëre moom xam nga dafa amul lu des te bii nag instant bi fekk na lépp complet wala entraînement man dama jàpp ne est-ce que entraînement yi taxul gars yi bëgg a te li falaas rek man damay meñcee maintenir sama forme mais dama jàpp ne ni ma ko gisee nii gars yi léegi dañoo ragal. <laughs> te warta doon affaire ragal. non non man parce que léegi làmb kenn xamatul lool. parce que loo wax ci combat def. non parce que moytu moytu bi mooy lan. giri day moytu non waxuma waxu giri mais moytu bi léegi daa bëri ci làmb daa bëri ci làmb fii lu ñu fi moytu amul gagne-pain la. ñu liggéey day jeex kenn ku ne seet leneen non wër-wërloo bi jaru ko musuma daw benn làmb man musuma daw benn làmb musuma delloo avance benn mbër ak ku munti doon te doo ko gis. mais nañ waa groupe Futurs Médias ñu ngi dox combat ba sori nañ ci ak yéen. non yaa ma ko wax yaa ma ko wax waaye daal lépp loo gis aussi tamit am na app mhm. gas suñu papa la ku ñu jox cër la ku ñu respecté la jox nañ ko suñu accord ñoo ngi koy xaar. mais incha allah waxtaan naa ci ak staff bi bu ñu waxtaanee li ñu waxtaan gis ñu li ñu war a def aussi tamit ñu dem seet leneen. xaar ba kañ ba kañ. xaw ma bi jox leen ko délai ultimatum. amul dele amul app bañ koy jox ñun amul délai amul app mais aussi tamit ñun jot na aussi tamit ñu tas suñu bopp app.